moom kontaan eh, bu baax. vraiment gars sama gars yi sax ñoom man en fait je suis un peu je suis étonné Mimi Ndiaye man man dama dama jaaxle quoi Chacha man man dama jaaxle quoi parce que li xew ci réew mi moom vraiment man parce que ay fiche man nee ay fiche de parrainage kese la loo xamante ne da ngay jël na ko am demal mais kooku su ko jëlee est-ce que loolu day signifier ne day bokkam du bokk mais on fait tout ce tralala pour juste des fiches de parrainage tamit. Oh, di day dem sax ba ñu yëpp suñu administration ndax ndax ay fiche de parrainage mais c'est vraiment maaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi ngeen def. sant sëñ Tuubaa alhamdulilah. ba lépp ngi dox. waaw eh, lenn li lenn li ngi dox. ah naka waa Touba. mu ngi sant sëñ Tuubaa bu a wér. Hmm, Woy Fall gaa ngi diis wala moo ngi wàcc. diis gann bu leen bu leen tuddati woyof da naan diis gann ndax mu ngi tane. yow yow keroog xanaa waroon nga waroon nga teew si Ndakaaru bi nga xamante ne euh, kii. démb plus tôt bi nga xam ne dañ doon déposé Sénélec lettre kii lettre de protestation yi. waaw waaw démb gars yi moom lañu doon def gars yi maanaam képp koo xam ne da am protestation wala ñàkk a kontaan ci Senelec démb am na lu mag moo xamante ne moom lañ doon def ci euh, ca Senelec waaw mais askan bi fu waay nekk ci àdduna soo amee lu la nakar rek mën nga bind sa lettre de protestation moo xam ci euh, courant la wala woyefal wala et tout saa nga ñëw déposé ko Senelec démb moom am na kuréel ko ngan goo xamante ne euh, organisé woon nañ li ni mel xam nga lu gën a gaaw hmm. Senelec bu nekk chaque jour mu gis téeméer nit ñu koy déclaré ay jafe-jafe ñoom ñoo ko tay de chaque jour ñu gis téeméer nit yoo xam ne jafe-jafe lañ fa indi te ñun te ko saafara. en fait lu nekkoon say ponk tey. yow moom foog mu boole la ak ma soxna kan mi nga xam ne moo nekk SOS consommateur au ngir moom say doléance yow foog nga bokk SOS consommateur ngir say doy say doléance vraiment nga mun ko àggale. ne bëgg retour bi daa mel taxul mu neex lool de. Mm-hmm. allo. mani mani maître ma soxna kan. waaw moo nekk SOS consommateur ma ne est-ce que duñu la booleeg moom ngir jafe-jafe yi nga xamante ne yow moom nga xalaat nga gën koo mën a jëmal daal. waaw. waaw loolu moom su mënee nekk moom xam naa nañ ci jéem a dox kaar ndax xam naa ne yow moom mbir mi soxal na la lool. waaw xam naa xam xam naa retour bu taxul ma dégg li nga bu baax waaye bu fekkee nii mhm. maanaam. yaa ngi may dégg vidéo bu mag waaw maa instant bi maa la dégg waaw dama ne dama ne. waaw en fait dafa am kuréel gu tudd SOS consommateur ki nga ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, gàddu ak ak yelef képp koo xamante ne yaa ngi way jëfandikoo nga ci réew mi. maître Massa Kane bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ko jiite. mais nag ñun mm-hmm. suuma dinañ boole ak moom ngir yow jafe yi nga xamante ne xëy na yaa koy dénoncé. mu gën mën a mm-hmm. am ak wàcc. ah loolu dama bu loolu dama xam naa émission bi am na nu ñuy jéem a def yow rek ndax xam nañ vraiment. ni nga ci mm-hmm. euh, ni nga ci xare sa tànk bi am na solo léegi ñu dëggaat ci waxtaan wi li nga xam ne moo xew direction générale des élections itam bu ñu fàtte itam euh, askanu Saint-Louis démb jot nañ gis euh, wala sax benn pàcc ci askanu Saint-Louis démb jot nañu gisee ki nga xamante ne moo di premier ministre Amadou Ba jot nañ ko itam jox ay euh, ay ay yóbbante yu yoo xam ne jëmee ne juste ci mbël gi nga xamante ne mbël gi nga xam ne moo nekk foofu noonu pêcheurs yi dañuy dund ca Ndar itam sonn nañ ci loolu immigration waaye itam weneen askan mm. war fere ci Richard Toll fi nga xamante ne fala la ministre fa la président assemblée nationale Amadou Mame Diop dëkk itam ñoom jot nañ mm. gisanteeg Euh, ki nga xamante ne moo di ministre waaye am na benn <laughs> benn pàcc ci askan woo xamante ne moom daanaka lañ ñu bëggoon mooy sonkoriser Amadou Ba ba tax euh, moom jotu faa àgg lii la itam <laughs> euh, moom premier ministre ni ki dem jot na am foofu noonu ca Ndar lii la itam na ci li nga xam ne moom la am na ñoo xam ne maanaam benn pàcc bi moom jotu faa àgg ndax gone dañoo bañ waaw loolu waxoon naa la ko <laughs> kenn ko nanga ko ci droit bul tëj bul baare télé bul baare kenn Mhm. waaye am nga droit di dugg ci dëkk dëkk ba ñu ngay dugg fa dugg arrangé woo leen ñu taxaw baara mbedd mi bu fekkee la fa ëpp ah. ñoom d'accord ñu dinañ am maanaam am maanaam mbooloo mu ko mën a baare bu fekkee nag la fa ëpp mm. d'accord nañu for for dañ koy baare waaw fi may tàmbalee mhm. maanaam ki jëloon fichier bi dafa delluwaatoon tey wala delluwaatutoon tey dafa delluwaatoon moom laa doon wax sànq ko sax dugg waaye dañ ko dàq ah ñu joxuñu ko ko waaye. nañ ko dàq joxuñu ko gañ. waaw ah, kay d' accord gis nga xam nga yow da ngay koo xam ne da ngay amal waxtaan askan wi dugg di so di soppante xalaat. Mhm. muy émission boo xam ne man dama koo sopp mhm. man bu ma sañoon émission bi du am ba jeex te dugguma ci sànni samay kàddu samay kàddu mu baax mu bon yéene rek laa am di wax. Mhm. waaye damaa bëgg rek Abdou ñii nga xam ne Macky Sall bu tag guddeeg bëccëg damaa bëgg rek moom bu bu bu duggee mu wax aqulaay taalaan ba xam li ñuy teg Ousmane Sonko jaadu na wala jaaduwul ah, ah. ba pare Abdou euh, euh, nekkul ne damay damay jël samay wax yëpp féetlu ko ci Abdou mhm. waaye démbul damaa gis ne bi ma génnee dugg na à chaque fois di di di di manque de respect askanu Sénégal nee na ñun jànguñu dañoo def du du ceew dong wax Feeling Dakar fu mu wootee loolu la waaye nag yàlla daa dogal saa bu waxee ba pare li ëpp ci Sénégalais buñ duggee dañ koy xeeb ma ko moom dëkkam boobu mu dëkk dëkk di ngaay maxe li ma koy posé question la ko fa Macky Sall defal bu dee tëli la nu wax ñaata tëli la fa def bu dee hôpital nu ñaata hôpital la fa def bu dee ndaw ñaata ndaw la fa may xëy mm-hmm. bu ko limul rek ab du na tëj gémmiñam gi parce que jàppee na Sénégalais ay dof parce que moom nee nañ patriote bi gën wàll gi jàngatoo ku jàpp ni ñuy jàng ni waa jàng yaa gën a dof yaakaar naa ne Abdou lu mu gàtt gàtt man war na maa magee vingt ans mhm. kon moom na jàpp ne dafa dof vingt ans ma doog a judd ci ginnaawam kon kooku kenn mënu koo faj kon d'accord naa ne waxi dof waxam waxam ji mu wax wax dof yi man gëm naa ne moom wérut parce que dafa ak si Sénégal yi ne wéruñu kon moom moo gën a dof la ñaar fukki at ma doog a judd mhm. nañu wax xam nga am na bàcc ndaw nee na a yow xam naa bu baax fi nga dëkk ñoo bokk dëkk fa xaw ma ñoo bokk dëkk fa ñoo xaw ma ñoo xam naa ba xam sa buntu kër mhm. sa buntu kër sax normalut Abdou na génn wax bu bu mu jël naan Macky Sall defar na fi ay stade stade la ko def tëli yoon Dakar la ko def. Mhm. léegi nag na wax lu lu lu ko Macky defal. ah xëy na moom da koo bëgg rek ah loolu tamit day am ci nit xëy na da koo bëgg. indi aajuwul non non dama ne mu defal dara aussi pour nga bëgg ko. waaw Macky Sall li liggéey jaadu na li muy liggéey na ci yoon. Mhm. mais sëñ bi Sénégal fii am na koo xam ne salaire bi cent mu bàyyi ndey ak bàyyi kër ga ak jabar di dépassé trois mille chaque jour mm-hmm. chaque jour trois mille weeru quatre vingt dix la ñu mm-hmm. andi la facture courant mu yées yées mm-hmm. sa ndox lu mu gàtt gàtt nga fay dix mille franc sa weer wi loo ci bañ bañ loo naju naju naju ak loo nay nay sa jabar weer moom duñ ci def dix mille franc sa frais maanaam sa paas yi doom lu mu bon dañ ci def cinq mille franc boo liggéeyee bay wàcc saa boo wàcc xanaa di nga jaar ci boutique bi wala nga jaar fenn jënd sëri ci téeméer sëri ci téeméer boobu nga xeeb weeru quinze mille la loolu boo ko boolee la cent cinquante mille nga am salaire cent mille franc boobu noonu da ngay ki ngay jëflanteel moo xam borom boutique la moo xam ku mu doon koy deseel cinquante mille bu weeroo dellusee boo ne la bor am rek looy def am na koo xam ne trente mille franc lay fayeeku mm-hmm. xam naa ci ku góor xam naa ku jigéen loolu sur na mille franc weer trente mille at mi trois cent soixante mille da liggéey dix ans doog a am trois millions six cent dix ans nga am trois millions six cent trois millions six cent yow boo duggoon jabar da ngay dese bor ci dëkk boobu ab di taxaw di ta di di takki rajo naan Macky Sall moo gën ci ñu mos ñu mos yor Sénégal ba pare nit la koo xam ne daa war a noppi mars 21 man am na ci émission boo xam ne Feeling Dakar la woote daal ne Ousmane Sonko bu bu xam ne la koy xaar moo tax muy taltale di wiiri wiiri wiiri waaye bu demee du dellusiwaat waxut dëgg Ousmane Sonko keroog dafa dem del delluwaat këram moo fa dem moo ñam xale bi la wax barki dem nii ne ko waxee moo ñam xale bi ëpp na jàpp ne lu mu wax Ousmane Sonko Ousmane Sonko dafa am ay ak njaboot Abdou lu mu wax Ousmane Sonko man bu ma ko waxoon bàyyi moom doon na ko dina am lu ko naqare su ma ko noonu yow Abdou sa bàyyi di wër di ngeen gone jigéen ñi dina am lu ko naqare bu ma ko waxoon man dina Mm-hmm. man bu naan ma saa Touba sa baay day wëdd def nangam du ñam gone jigéen man am lu war digg bi jaar mais sax jour ma wax Ousmane Sonko te tegu ko fenn mais na wax rek akulay taalam bu fekkee li ñuy teg mandataire maanaam waa waa Pastef yi mm-hmm. maanaam na wax rek bu dee lii dëgg la na ma ko wax bu dee du dëgg na ma ko wax. bu fexe bu nag ba ma ba tax tafal ba ne lii ma ko teg dëgg la. Mm-hmm. ku ñu dàqa fenn ab du yeewul Sénégal maa man saa Touba maa ko wax te bu ko neexee saa bu tege tànkam Sénégal ngaay meexe sori bu ko neex mu ñëw fii Touba. d'accord waat naa ko ci suñu boo ko d'accord léegi ku ko dàq fen yeewul nañ ñu ne liggéeyul. Mhm. bu fekkee demaat na joxuñu ko ko kon ñuy jaay doole gi jaay la moo xew. naa naan déggoo li mu la wax. dañ ko dàq dañ ko dàq. ah dañ ko dàq dañ ko dàq mook mook ak Cheikh Tidiane Dieye ak ñaari huissiers yi fa demoon yëpp dañu leen a dàq police moo leen dàq. waaw léegi est-ce que est-ce que est loolu mos ngaa gis benn taxi boo xam ne wala ci génn nguur goo xam ne maanaam nit jub na di sàkku ji loolu ñu bayal ko dag ma fekk ma yéemu bay laaj nit ñi ne ndax ñun ndax suñu administration lii du leen yeplu parce que administration dafa nekk ñoo xamante ne kuréel kuréel goo xamante ne ñoom dañ fee nekkal nguur administration mooy nguur maanaam lépp li nga xamante ne yoon ak yoonal lañ ko daal di jël mu nekk ndogal ñoom kayit ga su accès ca ñoom dañ ko war a jëfee ndax loolooy seen liggéey. waa xam nga yow ku la xam xam na journaliste bi boo xam da ngaa tëddee njaaxanaay waaye gis nga loo xam na leer na la leer yàlla ne man saa tubaab mu ñëwoon di ko doole di ko dëggal sax même ba mu ko ci antenne bi sam xel dina sam xel dina dem ci saatu tubaab yow kenn dàqulaa fenn même ba moom sam xel dina ci dem. Hmm. que ab journaliste nga loolu mosoo koo gis. Hmm. di ko dëggal da ngay xam ne kon kon li may wax rek bu fekkee lii ñuy teg Ousmane Sonko dëgg la. Hmm. na Sénégal yi bàyyi maanaam jàpp ne Macky Sall moo gën ci réew mi. bu fekkee ne noonu la dem laax de. bu fekkee na tamit jàpp nañ ne ku nekk da ngay wax asa akulaay taala ku mel ne Abdou bu ñëwee ne moom nee na sax Ousmane Sonko casier de seeram baaxul loola wax nee na ñun jànguñu Ousmane Sonko casier de seeram baaxul da ñun jànguñu Sénégal li ëpp ci Sénégal yi hmm. ay patriote lañu hmm. bu fekkee ne Sénégal yi jànguñu xamuñu dara ay nilaar lañu hmm. kon Abdou na jàpp moom ak a ak yaayam ak i doomam ay milliards lañu ah, damay wax li may wax non li may wax moom il faut ma wax mu parce que day dugg di wax di ñu wax ñu loo xam ne lu kenn xamu mm-hmm. bu fekkee ñun sénégalais ay Dakar lañu ay dof lañu xamuñu dara jànguñu maanaam moom na jàpp ne jàngut moom bu fekkee ne jàng ñun na jàpp moom jàng na buñ xamee dara moom na xam na dara waaye bu fekkee ay dof la dina jàpp ne bàyyam mooy dof bu mag bi jërëjëf baal doñ nag baal doñ merci sa Touba ñu ngi leen nuyu euh, di la ziar di la jaajëfal di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne aussi ñoo nekk euh, ci chat en di joxe seen xalaat Seeku Koli ci la bokk ñu ngi koy nuyu Plume Saad Bouli euh, Ndeye Sey Ibrahima Playa merci à toi Mami Ndiaye Chacha